ci bàyyi wuñ tijaan bàyyiwuñ bàyyiwu murit jaratu ko boo nee bàyyi wuñ murit teg tijaan rek xaajale nga ci woote bi maa ngi woo jullit ñi doy na maa ngi woo jullit ñi mais da ngay dégg ko naan jànge yi nangam la bàyyiwuñ laayeen bàyyiwuñ xaadir di lim lu ci lim islam woote na jullit ñi ñëw leen jeex na eh loolu doyoon na mais tur yooyu ci boppam loolu moo amul solo tur yooyu amul solo tur yooyu amul solo jullit rek moo am solo jullit moo am solo baatub tiijaan buñ ko firi woon tey tiijaan mooy lan ci arab tiijaan mooy mbaxana mu gudd loolu lay firi ci arab ñi jàng arab gis nañ ko a tiijaanu mooy mbaxana yi buur yi sol mbaxana yu gudd yooyu loolu lan la joteeg lislaam maa xuusun min kalimati taaj naam nañ leen dañ leen di firil baat yi affaire bi leer murit mooy jullit tiijaan mooy mbaxana mu gudd loolu ban sens la am jar na xulo bari na ku ne tijaan la du tijaan parce que solul mbaxana mu gudd loolu ban sens la am ban sens ñuy firi baat yi pour yëf leer xam ngeen lu am solo islam moo am solo ban solo ban tur moo am solo jullit moo am solo jeex na islam muslim jeex na yonent bi al muslimu axul muslim gis ngeen ko jullit mbokkam mooy jullit yàlla ne innamal mu'minuuna ixwa ñi gëm yàlla mbokk lañ yàlla dégg na arab bu fekkoon def ne innama tijaani yuuna ixwa wala mu ne innamal muridi yuuna ixwa wala innama laayee ni yoon a ixwa ñu mën a xaajale mais iman ci xol lay nekk yàlla ne innamal muminuuna ixwa ñu gëm yàlla ñëpp mbokk lañu murit gëm na yàlla tijaan gëm na yàlla laayeen gëm na yàlla nañ leen jëlee mbokk gi ci iman gi ci pas-pas bi mais buñ ko jëlee ci couleur gi mbaxana yu gudd yi ban sens la am ban sens la am amul solo salaatul fatihi mu ngi maanaam mu ngi ci wirdal maxuus benn la boo demee wirda murid da ca fekk allahuma salli ala sayyidina muhammadil fatihi lima uxliqa ci muri ko bind pourtant boo demee ci téere bi muy tuddee wasilatu am mu ngi ci ndax yonent bi la alayhi salatu wasalaam salatul fatihi tijaan yi moomuñu ko tijaan yi moomuñu ko boo dee gàmmo tijaan yi moom moomuñu ko Seydina Mohamed kay mais ku nekk am na ci sens gàmmo nag bu doon dëkk la ñëpp màkk lañ jëm gàmmo bu doon dëkk lañ jëm màkk lañ jëm anniversaire u Seydina Mohamed juddawul Tiwaawoon Mohamed juddawul Tiwaawoon juddawul Tiwaawoon kon jaa kon kon léegi kon kon léegi gàmmo du place mais gàmmo jamono la fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmo boo demoon Amérique sax dina la fa demoon Amérique fukki weer fukki fukki ñaar ci weeru gàmmo dana la fa fekk kon foo jëm maam Alaaji Malik daf doon yar njabootam ci islaam di leen tënk di gàmmo Sëriñ Tuubaa daf doon gàmmo ku weddi jàngal jasbul xulub ila alamil xuyub da danga ci fekk gàmmo amuñu tempour pour détail ko kilifa yëpp ñoo doon gàmmo di jàng maanaam te ñoom lañ ci doon jublu lañ ci doon jublu Euh, dafa dem léegi ba maanaam ba léegi ba ñu bari sax jàngkat yu bari ñi ñuy tuddee ibaadu duñu ibaadu de borom xam-xam lañ ñu bari dañ neen lay léegi euh, maanaam léegi euh, wàllu gàmmo bi la te nga naan ñoom gëmuñ dara ñu ngi fiy dind waxu kilifa yi maam Alaaji Malik waxoon na ko noona gàmmo bu fekkee du Seydina Mohamed moom lañ fay indi dafa jàngal siiraam nee na dafa xaram dafa xaram nañ ko bàyyi ñu xool gàmmo yi jamono yi Seydina Mohamed ñaata minute la ci am matul 15 man maa wax loolu ku guddik Seydina Mohamed mu du ci am lu mat 15 minutes la ci def ay santa ministre sàngam ak sëriñ diw ak ñu ngi lay gërëm kese ba gàmmu gi jeex loolu dafa jar a jarul dem fenn loolu jarul dem fenn bu fekkee nag boo fa demee ñu jàngale siira Seydina Mohamed waxal leen ni mel pour nga roy ci boo ko xamul bu la neexee demal mais boo demee ñuy politique boo demee bidaa la booba la gàmma doon booba la gàmma doga doon bidaa ku la woo ci Seydina Mohamed boo fa jógee buñ la laajee ci Mohamed da nga war a xam ci moom ay critères yu bari ko defee gàmmu gi neex na waa ji li mu wax ci nga xam ci Muhammad lu bari loolay gàmmu mag ñi dañ ko daan teg di jàngal siira maam alaji malik da doon a nga ñëw mu tojal la xilaasu zahab xilaasu zahab wa kana bat an ala hubil xala ila an jaa fi lgaari ruuxul qudsi lam yahimmi wa gattahu li buluqil jahdi qailan iqra wa qaala na muusu muusa dakki fabtasimi yaa laytani kuntu fiha saliman jasian wa kuntu hayyan ladal iqraaji lil itami ba mu jeex yépp di sayduna mu ngay commencé ca barata barata boobu gaa ñëwee kenn xamul kañ la di la commencé ca Abdullahi booba takkaguñu maanaam booba Abdullahi ak Aminatu sëyeeguñu ca la commencé woon ba keroog mu naan la fii la ñu rob Seydina Mohamed keroog dëj ba bàyyiwut ci Seydina Mohamed dara dafa daan woon nit ñi mu ñëw ma commencé leen ca kooka léegi mais xilaasu zahab doo ci dégg ñaari bayit pour lan xilaasu zahab doo ci dégg ñaari bayit amul kenn ku lay woo nga ñëw mu lay waxal ci saytanam Baye Niass Baye Niass ca Kaolack daan naa toog 11h mu ubbi gàmmo gi ba 11h ci bëccëg muy waxal boppam ci saytana Muhammad alayhi salaatu wasalaam gis naa ko gis naa ko 11h ci guddi lay ñëw toog ba 11h ci bëccëg naaj bi day tàng gaañ di ko ëpp muy wax ci saytana Muhammad alayhi salaatu wasalaam booba gàmm amoon na solo ca jamono jooju waaye bu ñu demee nag ba politiser ko léegi amatul solo jaratu ko kenn ku ne na nga toog sa kër jàng alquran boo mënee togg Serigne Touba nee na même bu fekkee da nga cee togg ñam ko loolu rek paygam lay indil kenn xamul naka la toll Serigne Saliou daf koy wootee daf nan la gam bu màggal jotee ngeen déglu ko yonent bi rek la bëgg a junj nit ñi moom maa ngi déglu ay xutbaam maa ngi déglu ay waxam dem nañ fa toog nañ wax toog toog ñun toog nañoo ak moom encore Seydina Mohamed ak alquran rek moo ko intéressé ak jaamu yàlla Touba koñ bu nekk léegi lañ fa lañ fa lañu fa lañu fa plan yi ñu fa teg ci ay mosquée plan yi ñu fa teg ci ay mosquée mat na ñetti téeméeri mosquée ngir lan jàng alquran jaamu yàlla liggéey ci lii la teg ay mbiram kon léegi fi léegi mu soppeeku murit gi leen mu soppeeku ndax ñoom ñoo fas yéene soppeeku actuellement ndax caxankat yee bari caxankat yee bari mag mu bale këram nag ba mu set ngay tibb suuf di ci sotti loolo loolo jaaduwul da ngay gis ku nan sàngara ba mandi nan la barkeb Sëriñ Tuuba gis ngeen ko gis naa ko wala nga nekk jigéenu jigéen maanaam jigéenu caaxaan jigéenu caaxaankat yi boo leen rombee sëñ Touba rek lañuy ayuma sëñ Touba la ñuy tudd am na nag ku koy rafetlu am na benn waay bu ñëwoon tawilal leen ko ba nga xam ne garaawatul lu nekk lañ ci wax loolu defe nga ne jàddu na loolu mooy respecté sëriñ si bokk na ci ñàkk respecté sëriñ si bàyyi ñu leen misi misi gi leen di wëy man moo gisee bu ma gisee taaliba bu téléphone rajo dinaa di kaas naan sëriñ nanga ma ne ko danga nga tardé da nga tardé sëriñ Touba ak ni mu teddee sëriñ Touba ni mu sellee ñu di ko wëy cosaan yéen a ko gis gel yi sollu gat ne ci biir cosaan di fecc ñu naan bamba bamba benn sëriñ kasul benn sëriñ kasul dabaax ak ni mu teddee ak ni mu déggee islam ngénte yi dabaaxee dabaaxee ji kon ñun kilifa yi dañ leen gëm ñu leen di fooye dañ leen di fooyee gëmuñu leen gëmuñu leen dañ leen di fooyee gis ngeen loolu yëpp ñun ñi kilifa guñ ci xas fecc nag pour nga toogaat di waar nit ñi ñu di ko dégg mee dina doy waar kon il faut ñu moytandiku façon yooyu kilifa yi ñuy jëriñu ci ñoom respecté leen ko am wurusu jamaa da nga koy fonk bu ñu sàgganee kilifa diine yi di leen foye di leen agressé di leen dem ba dootuñu leen jox benn sens su ko defee islam dootu am solo imam yi wax ju ñaaw ju nekk ñu adressé imam yi te kenn du kaas pourtant doo fi dégg kenn wax paap paap bi kenn du ko wax dara paap bi kenn du ko wax dara ministre yi kenn du leen wax dara mais imam lu neex waay wax lu neex waay wax imam lu neex waaye attise islam seriñ bi nañ ko tëgg nañ ko fecc ci baar yi ci ci palaasu caaxaane kay yi kenn du kas sëriñ Tuuba noonu lañ koy noonu lañ koy jaamee noonu lañ koy jaamoo sëriñ Tuuba noonu lañ koy toppee xasiida yi may wax Youssou Ndour naan ay radio xasaayit every time ay radio xasaayit ci biir cosaan ci biir cosaan xasiida yi noonu lañ koy jàngee mais pourtant benn sëriñ kasul nag moo tax ñun tuuti nañ ci xeeb ko ne maanaam tuuti nañ ci kas ko ne leen ko bàyyee rek ñoom doo dégg kenn ku sant mbàkke ku kaas doo dégg kenn ku sant si ku kaas dabaaxee dabaaxee ci ngénte yi kenn du wax dara sëriñ boo xam def naan la nañ ànd jaamu yàlla nga taxaw ñu koy tëgg di fecc ban sens la ñu amati pourtant bi kenn du ko tëgg fecc kon islam bi kan moo ko fi toogal benn waay moom mos a bind musique dugal ci seen kolos yooyu ñuy teg génnoon na fi dafa tëgg musique maanaam mooy église bi bu ñu noddee seen kolon kolon yooyu ñuy def dugal ko ci biir musique waa ji dañ ko censuré dootul tëgg musique te cassette bi génnee nañ ko ci na bi Jean Paul moo def intervention Jean Paul moo def intervention ndax seen diina la kenn du ko fooye ñëpp d'accord ci mais islam bi xool leen xool leen islam bi niñ koy fooyee buñ la fonkalul sa kilifa mais duñ la ko fonkal koon yooyu ñun xale yi ba léegi rek ci biir information yi dañuy jottali mais li may wax nii gis ngeen ko ñun nag ñëpp lañ ànd bëgg dama jàngoon ci suratul baqara la nu fariqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak man foofu laa teg sëriñ si alquran yàlla mu ne du ma séparé kenn ci diggante yonent yàlla yi ñépp la gëm sami'na wa ata'na kon ñun séparé wuñ kenn ci kilifa yi mais ni leen di taaliboo ak ni leen sàgganee ba tax na seen seen valeur bëgg a manqué buñ toogee ñu naan wax murit nekkul ci kaddu wax ku dàq fent wax ju neex nga ne maanaam ne murit la du loolu murit day respecté waxtu te di ko booleeg jàpp nag encore Sëriñ Tuubaa nee na ku dul julli bu dee buñ ko julee moo ko bind ci xasida yi <laughs> nee na ku dul bu dee buñ ko jullee nee na encore wala wala sax ku yéexee sax waxtu wi la wax borom xam-xam yi comme li may wax man la rek borom xam-xam yaa ngi ma wër du may sos lu may wax dang naan ci ban xasida la mais lu ma la wax rek xasida la wala ay alquran ku julli buñ ko julee ku yéexee waxtu wi waa ji war na ca ku jullit encore te amoo ngànt te jàppaloo bu dee buñ ko sang waaye léegi xasida boobu xanaa duñ ko firi xasida nag nekkul lu ñuy jël di wéy di motosu déedéet loolu ñu tardeel di motosu benn waaye ne ma sa umu kalsoom bi dindi ko mënoon nga fi te xasida yi ma ne ko man neexuma baat du ma ko wéy dama koy firi dama koy firi neexuma baat man du ma jànkati xasida buy toog di wéy dama koy firi ne la Sëriñ Tuubaa lii la wax mais pas nag ma nag léegi di la wéy neexuma baat baat di la wéy nga may jox xaalis intéressé wu ma dama la koy firil wax li Serigne Touba wax boo ko demee boo boo ko defee sawa boo ko deful ba léegi yow yaa xam mais man du ma wéykat man kon loolu il faut ñu xam ko kilifa yi li ñuy bind di ko mott amu ci ci lu ñuy bind ki mott su amul damal nga jaamu ci yàlla la ca des ñaan la di ñaan yàlla yi mott su pour lan la ca des ñaan la la ca des tagg Seydina Mohamed la wax jikkoom bu ñu ne tagg sax baaxul Seydina Mohamed bëgguloon ku koy tagg doon na wax ne laa tatruni kama atrati nasara isa bu leen ma di tagg comme ni nasaraan bi taggee isa mosu koy bëgg ku ko tagg ndax nee na nasaraan bi tagg gu ñuy taggee isa moo moo dem ba xamatuñ yan baat lañ koy adressé ñu ne ko doomu yàlla ji ñenn ñi sax naan ko yàlla ji ngir lan taggaate bari na fi nag kilifa bu ñuy dem ba naan diw yàlla la xam nga lu ñun ko tax xam nañ du yàlla mais taggaate gu ëpp tagg nit ki baaxul nit ki bul ko di tagg baaxul taggaate moo baaxul yonent bi am na benn waay bu tagg nit ki benn benn waay bu tagg nit ki mu ne ko yow waa ji def nga ko golo soppi nga ko golo yonent bi ko mos a tagg nit ci kanam mu la soppi nga ko golo ndax nit ki boo ko taggee rek mu gis boppam taggate ma baaxul buñ la taggoon léegi gis sa bopp firaw na gaa ñi doon nañ ko tagg ba mu ne ana rabbukumul aala maay yàlla ji gën a kawe ngir leen ay taggaate ga ay suq kon ay suq ko yebu may tandeku ko ndax ñoo lay ñoo ñoo lay gëm looloo xam ne li jaaduwul nit ñi dangay nekk modeste nekk jullit nekk modeste mais ñu lay gëmloo yoo xam ne yi di la tóoj di la yëkkati ba kañ yàlla bëggut loolu yonent bi da nga daan ñëw laajte ko ci buntu këram fekk ko mu toog nga ne ko Mouhamed laa soxla mu ne la maa ngi nii nga naan ko noo yonent bi doon woote laa wax mu ne la mais man la ndax yow gëm nga ne Mouhamed protocole la war a am Mouhamed moo saam bëkk néeg ah saam bëkk néeg mbindaan yi daf daan ànd ak ñoom di liggéey ak mos nay ànd ak euh, Ousmane Abou Bakrin Aliyin ñu dem ci àll bi taxani dem ci àll bi liggéey ñu dem ba xiif Abou Bakrin ne xaaral ma dem jàppi benn rab Ousmane ne ko boo ko jàppee maa koy togg Omar ne ko man may dem uti ndox yonent bi ne may uti matt ñu ne ko déere toogal yow la yàlla yónni toogal ñu togg ko mu ñor ñu jox la mën ne yàlla dafa xaraamal yàlla dafa xaraamal nit toog ci milieu am lu ñu lay xamee ña ci des ñi jàng hadis gis nañ loolu kon jullit dafay modeste yonent bi ne aradallahu aradallahu eh, masalan aradallahu eh, yàlla yàlla dafa bëgg ci nit ki samhan samhan isa baa samhan isa baa nit koo xam ne dafay modeste suy jaay wa samhan isa shtara buy jënd itam mu modeste wa samhan isa qada mu modeste suy leb wa samhan isa qada buy fayee ko encore mu modeste kon bëggul nit ki di gis boppam ci benn temps sooy jaay nga normal rek sooy jëndit nga normal da ngay gis kuy ñëw jënd ci boutique ba wan la ne la moom mooy jënd lu ko lu ko neex wax la da ngay xool temps yi fi naar yi nekkee son sonne woon ndeysaan mais seen islam da ngay gis xale bu ñëw taxaw ci boutique gu naar yi di leen saaga ndey ngir lan da ngay jënd sonnoon nañ fi lool mais seen islam moo leen yaroon sonnoon nañ fi lool mais seen islam moo leen yaroon ñu yore ji koy islam moo tax da ngay gis naar boo xam ne buy ñëw du indi dara mais bâtiment yu rëy la tabax ñaari at la fi ñetti at rek yàlla barkeelal ko kon njaay mi bu ñu bëggee mu barke nañ leen ko di sellal te boole ceeg muñ alal ju bari amul solo da ngay tabax benn capital ba mu yàgg bu fekkee riba nga ci boole nga toogam yàgg am marchandise bu ñëw nga jël capital bi yëpp boole ko ci perte nag foofu day perte mais boo sellalee boo sellalee li ngay jaay xam nga dërëm yonent bi la mu rawee woon commerçant yi marché noir la woon lu neex way jaay day jëndee téeméer ñëw nga fay ko téeméer ak ñaar mu jaay la balay commerçant yi jeexal moom mu jeexal jëndaat marchandise delluwaat màkk yow nga jënde téeméer naan dix mille laa koy jaayee nu mu gën di yàggee di la maanaam nu nu marchandise bi gën di yàggee yaa ngi lekk ci sa bénéfice wala yaa ngi yàgg sa mal wala yaa ngi lekk sa capital balay jar nga lekk genn wàll gi kon marchandise bénéfice bu gaaw bénéfice bu gaaw ngay daw dem jëndi leneen moo gën marché maanaam moo gën bénéfice boo xam ne bi dafa yàgg baaxul long terme baaxul ci njaay jëndee nga téeméer boo gisee téeméer ak ñaar fukk jaayal sa marchandise jeex jot nga sa capital pertement amu ci nga dem jëndiwaat marchandise yu gaaw yooyu moo taxoon Seydina Mohamed ay ah, maanaam am njaayam barke woon am njaay ma barke rapidement bu demee jënd rapidement ñëw jaay balay ñee di jeexal mu jëndaat yóbbuwaat nii mu jógi clients yëpp ñu far maanaam clients yi far jublu ko ndax nit ñi ñàkkuñ ful la ku ci gën a yombale nag fa la ñuy dem ku ci gën a yombale fa la dem waaye yore marchandise nag euh, li ñuy wax euh, laxas ci jaan yi dañ lay daw te comme que ñëpp ñuy jaay ñi maanaam ñiy jëndi sa ay jullit lañ nañ leen ko di woyofalal ñu nu neen xëy na nag jaay jafe na ci Sénégal ndax problème yi yi lu nekk ñu ngi ko ciy wax actuellement bari na mais ku ci jullit na xam ne yow bul découragé sa islam moo lay liggéeyloo nga xool nag li lay islam sant rek rek ñu koy def ñu xool juróomi at ba xam juróomi at rek yàlla barkelal la am njaay bu mu la teree julli rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi yàlla mu ne am na nit ñoo xam ne njaay jënd du leen teree julli yow nga ne ci lijjanteem xaalis bàyyi tusubaar bi rek bàyyi takkusaan di dajale ay bor di fay ngir lan lijjanteem xaalis jaaduwul yàlla y barkeelal bu waxtu yu jotee bàyyi ko fa isa nudiya li salaati min yawmil jumaati fasawi ila dikrillahi wa darul bay'a kon yàlla mu ne bu ñu noddee bàyyil njaay mi nga wuyu si ma man yàlla ndax man yàlla may barkeelal nga teg sa place julli ba pare ñaan yàlla mu barkeelal la nga demaat ubbi jaay soo ko defee yàlla barkeel di jàng benn waay ne na ma bu fekkee da ngay jaay booy jàng wa isaara aw tijaratan aw lahwan infadu ilayha wa tarakuka qaiman nga di ko jàng te xam lam wax barkeem jaaya ngoog commerçant bu nekk nay jàng alquran ci palaasam aaya fekkee defe naa mu ngi ci suratul safi suratul jumaa wa isa ra'aw tijaratan aw lahwan infadu ilayha wa tarakuka qa'iman qul ma inda allahi xayrun min allahi wa min at-tijara wallahu xayru rasiqin nga di ko jàngate ba waxtu jotee nga julli te firilu nag aaya boobu ba xam lim la wax ko ko ci def juróomi at léegi nga am bénéfice Bayrem Ndiaye ngoog seen wala <laughs> kon léegi comme que guddi na te mbokk yi am nañ fi ay ay question ak ay ay contribution dañ leen di bàyyi ñeneen ñi kon dañ leen di wax rek asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh yaa xel oustaz dafa am nag suñu mbokk boo xamante ni dafa bëgg sànni tuuti ay kàddu rek pour sant la amee am ay contribution yoo xam ne bëgg na ko cee def kon leeral nga li nga xamante ni mooy taxyiir bi ñu ni raa mooy li fi war a jëlee loo xamante ni lu ñu sib ci ñetti yonent bi wax man raa minkum munkaran fal yuqayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi qalbihi fa in lam fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi kon ñett yooyu nga xamante ni moo war a nekk li nga xamante ni moom la ñuy faja loo xamante ni dañ ko sib ci islaam yow loolu nga leeral jullit ñi pour ñoom ñëpp nañuy amee lu mel noonu lu leen naqari ci seen lislaam lépp loo xamante ni gis nañ ko lu leen neexul ci islaam nañ ko soppi ci seen loxo wala buñ ko mënul nañ ko soppi ci seen làmmiñ buñ ko mënul soppi ci làmmiñ ñu soppeeku ci seen xol Tayib Socé nag moom mi ngi taxaw yore na làmmiñam en même temps li nga xamante ni loxoom jot na ci moom mi ngi ciy def loxoom it encore kon nag yéen li ci des ah ñun ñëpp ñoo ko war a bokk ñoo gisee ko noonu wasalaamaaleykum. Ah, bu ko defee asalaamaaleykum. takk téere takkam nag moom bari na fi coow xam naa ne bari na fi coow mais mun nañ la ci jàngal ci ay façon takkam takkam téere bii bu fekkee musluwaay nga bëgg lu la musal yaakaar naa bu fekkee téere loolu tax ñu koy takk yonent yi moom la yàlla waxoon li ñu yonent bi jàngaloon addu'a usilahul mu'min ñaan daal la waxoon ne mooy nga nayal jullit sayidina Mohamed alayhi salaatu wasalaam gis nañ ci moom ay ñaan yu bari mais man mosumay gis fu yonent bi bindee téere daan na mocc nag mosumay gis itam fu ma amet bindalee nit téere wala ku ñëw ne ko bindal mab téere amul téere bi ñuy bind boo sàggantu dina la indi dina la jox shirku dana tax nga bokkale yàlla ak téere bi yonente bi danoon wax man alaqa tamimatan faqad ashraka ku takk ab téere ku takkaloo mottale ko tamima mu ñu ngi ko jëlee ci mottale ko kon ku takkaloo mottale ko bokkale nga loolu ak yàlla loolu de la yonente bi doon wax ñun nag fii islam bi daf fi ñëw fekk fi ñu yore sunuy sunuy aaday bopp am yeneen yu ñu gëm kon nit ki fa gëm yàlla am toll daal foofu la bu fekkee gëmoo yàlla gëmi téere itam Sénégal yàgg nañ fi discuter problème yi bi rajo bi rek lañ fi ci mbirum téere bari na fi bari na fi bokkaale ci téere bi masalan bu fekkee dañ ma jox benn téere ne ma soo ko takkee doo accidenté xanaa ku la jox téere dina la wax téere bi jëriñ soo takkee téere doo accidenté may dem Kaolack fàtte téere ba ca kër ga dem ba pompier sama xel daj ne bàyyi naa téere ba ca kër ga wasaagantul dinaa wax ne li tax ma bàyyi ko mooy dama war a accidenté ci yoon wi loolu moom mooy toq ci sa xel mi fàtte nga yàlla téere bi ci boppam nga gàddu lii fàtt lii ci maanaam lii tax na nga fàtte sa digganteeg yàlla mais loolu bàyyi ko fa te féeteeg yàlla rek abadan féeteeg yàlla toujours yonente alquran jox nañu ay ñaan booy génn booy génn sa kër nga di ko jàng sooy tukkee am na ñaanu yonente bi joxe nañ jàng yooyu te bàyyi téere yi en tout cas man loolu laa gëm loolu laa gëm keneen ku nekk it la nga gëm bu la neex nga continuer mu ngi waxtaan ci góor guy jox jigéen loxo islam man dama ko doon teg rek ci yàlla ne la taqrabu zina la yàlla waxoon bu leen jege njaaloo ñun Sénégal góor ñi bu ñu bañ di jox jigéen ñi loxo ndax jox jigéen loxo tàpp ko joxe rendez-vous loolu dafa haram dafa haram ñun Sénégal moom joxe loxo ji jox jigéen loxo moom fii dafa haram moom parce que bu ma koy jox loxo duma ma ca yem il faut ma continuer wax tuuti waxee jàpp ko jàpp ko li ñuy wax jàpp ko comme que bu ma ko joxee loxo jàpp ko te yàlla ne laa taqaraboo zina bul jege njaalo kon ñun joxe loxo njaalo la ci ñun jege njaalo la kon kooku dafa haram na mooy mu ngi laajte sopp nit ba jël photo am wekk ko kooku moom gisuma fu ko islam aramale kon ñu man sañu may aramalal kon jël nit muy photo nga wekk ko loola taxul ndax da ko bëgg rek sopp ko bu fekkee nag da ngaa wekk nag photo bi nag ba boo xëyee au lieu que nga julli ñaar rakka ngay raay bi xaraam na léegi xaram na jullit moom bu xëyee na julli ñaar rakka su jootal yàlla waaye julli su jootal yàlla ba pare nag naan nii di ray foto bi kayit la amul benn solo am na benn waaye dafa dem kilifa sëriñ bu xam ne kilifa la màgg lool gàddu fotom ca ca jàng yi ñëw indi ma ne ko ñaata nga ko jëndee mu ne cent franc ma ne ko mais kilifa gu toll nii cent franc alors loolu kilifa gu toll ni sëriñ bii ñu koy jaayee cent franc moo tax nga xam ne kayit gi kon amul solo c'est que kilifa googu ëpp na 100 francs mais kayit gi nag ñu koy jaaye 100 francs kon kayit gi nag la mën a jëriñit ñàkk solo bi ñu koy ñàkk solo gi ñàkk solo ba ñu koy jaayee 100 francs moo lay wan ne kayit ga mënul jariñ jëriñ kayit ga mënul lay lor soo amoon jëriñ dinañ la ko jaayee leneen lu ëpp 100 francs ay waxte mooy wàllu do planning familial mais limité de naissance la tahdid xam nga tanzim tanzim moom dagan na mais tahdid bi nag moom li ñuy wax euh, organisation njur mi organiser ko ba mu sori loola dagan na mais limitation bi nag moom moo xaram moom jigéen ñiy def jur tuuti bëgg a dem France tukki tax nga jur sa maanaam nga tëj sa buumu njur gi ngir lan mën a am liberté di tukki di jaay looloo xaram jigéen ñu bari Sénégal ñu ngi koy def actuellement da ngay toog tuuti nga ne xaaral ma jur li may jur doyal na soo paree tëj sa buumu njur ot sa passeport yaa nga France yaa nga Amérique pour noos na mais organise say doom bañ a neef loolu ci boppam dagan na pour sa doom dëgër say euh, sa soxna itam dëgër loolu góor gu nekk loolu moom lu islam dagan la moom waaye arrêté ko wala nga tëj ko ngir fooy ki caxan loolu moo xaram ndax aram na ci ñi koy sol wala ñi koy ñaw dégg naa masala bi bu doon la nag ñu koy ñaw ñu sol duñ ko sol parce que allazi tawalla kibrahu nag bakkaar bu ne aram na waaye ka ko sos nag ka ko sos allazi tawalla kibrahu kooka duma yi ko yàllay dóor mooy gën a rëy duma yi nga xam ne mooy duma ki ko sol modèle yi ñu ko fii génnee modèle yi ñu ko fii génnee duma yi leen di yàllay dóor mooy gën a garaw duma yi muy duma ñi sol modèle yi pourtant jigéen modèle jigéen mu ngi ci alquran ñi jàng alquran gis nañ loolu jigéen yàlla da ko sof da ko fonk ba utal ko modèle modèle bu góor di sol amul góor moom góor al pantalon ngay sol ak xaftaan ngay sol ak amul ci alquran mais jigéen la muy sol mu ngi ci aaya alquran aaya alquran la li nga xam ne mooy aaya alquran bi yàlla joxoon jigéen ñi nga dind ko fi indi li nga xam ne mooy yëre yi kay yëfër yi jël modèle yi di ko ñaw ngir lan xaalis bi ngay am dafa aram carrément ci tailleur yi nga xam ne ñoo koy def léegi ci tamit car mooy comme ni ma ko waxee woon marchandise mi xaw nay manqué maanaam ceeb baa ngi waaj a nga jënd ca ay thème riima ko yow ne doo ko jaay léegi da ngay xaar ba mu jeex wala ba wàññeeku nga di ko jaay kilo 500 looluy ixtikaar ixtikaar googu lépp dërëm boo ci jëlee rek riba la maanaam pour da ngay laaj ci diggante jaay ak ihtikar ak riba kon alal ji nga jël denc ko di xaar mu gën a cher nga jaay ko la nga cay jaay lu seer loolu riba la riba la boo demee ci nga jaay nit wala nga triyaan nit loolu yëpp maanaam loolu yëpp dafa nekk loo xam ne lii wala nga lebal nit defal ko dërëm ak ñaari dërëm yooyu yëpp ay façon riba la même intérêt banque yi ñuy def nii riba la dañ koy moderniser tudee ko intérêt xam nga Sénégal riba moom baatub alquran la koo ne riba mu ne eh, riba dafa xaram mais léegi dañ koy moderniser woyo falal la ko naan loolu noonu intérêt banque la intérêt banque mooy riba banque mais nag baat boobu dañ koy woyo falal léegi su ko defee dootu dootu garaw yamut ci li ñuy lekk mais mën nay dem sax ci li ñuy sol ihtikaar yamut ci lu ñuy lekk kese li am solo mooy ihtikaar mooy marchandise bi daal mu ngi nii di waaj a manqué looloo ci am solo jënd nga lépp def ko en gros ko di xaar mu gën ci lu ñuy lekk ihtikaar la marchandise rek ci lay doon marchandise nag amul lu ñuy lekk ak lu ñuy lu ñuy sol ak loolu ixtikaar moom ci marchandise mu mënta doon ci la mën a doon ixtikaar dinay dem ci xam-xam mooy leen ñu féetale benn kër ñoom doo ngay am xam-xam ñoo ko def ixtikaar kuñ xamalut doo xam bu la keneen di xam la sax ñu ne ko kooku day caaxaan ixtikaar nañ xam-xam bi libéré nañ leen libéré xam-xam bi comme neex sëriñ boo dem jàngee ji benn way day joxe misaal ne bu fekkee yow tool bi da nga a bay yow nga ñëw euh, nga maanaam ñu jox la benn sas ci tool bi avant ngay dem di ko bay am ku la ko bayal ki la ko bayal kay bu fekkee kooku bu fekkee tool bu set moo la intéressé woon kooku da koy wëlbi sa maanaam da léegi da koy sant mais amul kenn ko bëgg sa taalibe nag dem ci sëriñ diw di ko ñaanal déedéet amul kon xam nga ne bay tool bi intéressé wu la mais am leneen loo nam ci waa ji man gis naa koo xam ne dafa waa ji dafa ñëw jébbalu mu ne ko araamal nañ la ci yoon wi siyaare beneen waliyu gis naa ko toog naa mu toog loola am yoon wi daal li ñuy tere mooy siyaare beneen waliyu xool leen loolu loolu islam waliyu yàlla ñëpp nga sañ bëgg waaye daal ku bokkul ci yoon wi daal bul ko siyaare ji xool leen façon boobu ñi jëbbalu ji gis nañ lii ma leen di wax nii loolu xanaa yàlla taxatul wàllu yu yàlla kum ca mënta doon jullit kay wàllu yàlla kum ca mënta doon am nga droit man bu ma neexee siyaare alaji malik su ma neexee siyaare sëriñ tuba su ma neexee siyaare kenn mais ma ñëw ci yow di jëbbalu nga naan ma bul siyaare sëriñ tuba wala bul siyaare ji alaji malik lan te gis naa sëriñ boo xam ne ku jëbbalu ci moom loolu la lay wax mu ngi ci dëkk bi mu ngi ci dëkk na ñu bëri dégg li may wax nii kon loolu ihtikar la ba baaxul dafa xaraam encore yonent bi nee na man xasha fa laysa minna comme ça ngay jaay euh, am marché comme li maa ngi ko doon traité ci thème bi léegi mooy xale bu jigéen bi yaayam waxoon ne ko tànkal ndox mi sotti ci soow mi pour mu gën a bay bi nee na man xasha fa laysa képp koo xam ne kii da ngay jaxas sa marchandise pour mu gën a bari bu fekkee lem la nga dëbb tàndara ma boole ko ci boo dee diwtiir nga jël tamaate farce bi def ci ba am na fii Sénégal ah, loolu yëpp xasha la yonent bi na ne ku koy def génn nga an millatil ibra eh, génn nga ci millatul islam nekkatoo jullit ci jamono bi nga koy def kon xat si dafa bari ndax eh, kooku jamono ba muy sàcc xara eh, maanaam gëmatut yàlla yonent bi nee na la yasriqu saariqu xiina yasriqu wa huwa mu'min sàcckat bi jamono ba muy sàcc yonent bi nee na gëmatut yàlla dañoo rocc ci gëm yàlla ci moom moo tax muy sàcc bu nangoo toog muñ te xam ne na fexe jariñoo ñaqam sàcc moom moo gën a dëgër fit lëndam gi guddi gi ku ca mën a génn di yot parce sa dee xëj na ci sa dee xëj na kooku jaay bakkanam dëgg la kon kooku gëmut yàlla su gëmoon yàlla dina xëy suba teel nelaw bu bër setee mu bu bër setee mu dugg ci dëkk bi jéem a uti loo xam ne li ci lay dundee yonent bi daf ñu doon jàngal tawakkul te mooy wàkkirlu yonent bi ne law tawakkaltum ala llahi xaqa tawakkulihi la razaqakum kama yarsuqu tayra taxdu qimasan ko taruhu bitanan yonent bi mu dë ci yàlla dëgg dëgg wàkkirlu mu kon yàlla dina la wërsëgal comme na muy wërsëgalee am picc yonent bi nee na picc benn benn picc du xëy ndekkee këram picc du ndekkee këram parce que bàyyiwul fa ndekki